Euh, da may permettre euh, question boobu sax daf may permettre euh, un peu ma revenir sur li tax li gën a tax ma ñëw fi tey parce que je suis le coordonnateur de Aar Pikine Aar Sunu Moomeel di wax ak waa Pikine mhm. di wax ak waa Sénégal aussi di leen xamal ni réew mi ak lu mën a am ñun ñëpp ñoo koy bokk. dëgg ñëpp ay sénégalais lañ te am na benn. cofeel la laa koy mën a wax boo xam ne moo ñu lié état d'esprit bi ngay wax état d'esprit sénégalais authentique bu fekkee ne fi nga juddoo yaroo fi dafay nekk ci yow foo dem yóbbaale ko que ça soit dans les ci cours de cours de récréation yi que ça soit dans les bureaux que ça soit même ici sur seen établissement de seen seen télévision bi d'autant plus que vous êtes euh, dirigé par euh, une femme remarquable te aussi wax ni sénégalais nii euh, non seulement dañoo war a téye seeni doom mais ci côté éducation aussi dañ ko war a yokk euh, xamal ni réew mi jigéen ak góor ñoo fi yem te aussi ñu commencé xamal ni xale jigéen dañ ko war a respecter parce que c'est un problème dans pays quoi et les gens n'en parlent euh, la fille la malheureuse Adji Sarr xool nañ ko exhiber di ko. saaga di ko yàq lu nekk comme si Adji Sarr amul papa amul yaay comme si Adji Sarr dafa am koo xam ne moo ko ëpp ay droit lu ko neex mu teg ko ko lu ko neex def ko ko parce que insulte saaga bi mu ko mujjee saaga loolu moo lay won ni kon moom mosul am respect xale bu jigéen bi te xale bu jigéen lu mu wax man gëm naa ko. merci gëm naa ko bu ko saagawul woon kat dinaa continuer peut-être di ko jox tuuti euh, nu ñu koy waxee il aurait bénéficié du doute mais depuis mu ko saagaa. laa ne kii amul benn respect waxuma la sax ay mais respecté wu leen jigéen. merci beaucoup.